nañu taxaw temm ci dëgër ci jamono ji nga xam ne àdduna sëngëm na jëfandikoo sabab yi te wàkkirlu ci yàlla koronavirus du dox sunu digganteeg liggéeyal sëriñ bi ci Touba jàng nañ ci sëriñ Touba ne jëf ju baax tey dàq musiba ak balaa joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yépp nañu wéyal liggéey bi ku bëgg fësal sa yéene ci liggéeyu Serigne Touba bi te am compte Coris Bank boo fa demee des na la jox ay formuleer yu nga xam ne dang ci xaatim bu ko defee weer wu ne wala saa la soobee nu jël koppar ci yow tàbbal ci compte Touba ca kanam compte boobee ngir ngi toll ci SN 213 170 050 00 802 124 401 65 Touba ca kanam di géegil Sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba. di tuub di balante ak te ñaan yàlla mu gu ànd ak xéwal yàlla musal nu ci coronavirus.